leen ngeen waxaat boobu te tamit bu leen dégg téelu rek ne dat damm na xam nga boo leen gisee déggee ñuy wax si nit loo xamante balaa ngeen a def ay wax fi nekk xam nga fii tonton lañ man kooku li ma Sama góor sama tonton lañ maa ngi ñaan bu ma bu ma nit gisee may def nga yedd ma parce que seen i seen i sœur lañ seen i yaay lañ xam nga man loolu laa amoon si lu may wax dañ leen jàppee comme seen i sœur ak seen i man maa wax loolu te yàlla dogal na jigéen ñi nekk bi yëpp ku ne xam na man ni ma leen téye ñaari loxo laa leen téye amul benn jigéen boo xam ne ni bu may bu may xaaral dafa naan dañuy waxtaan dañuy waxtaan solo la solo la man bëgg ak cofeel bu mu am ci yéen moo tax comme que bu ma romboon tey nit muy wax ci lu ñaaw ci yéen damay taxaw défendre wala li muy wax dama ci am waata ndax daf may naqari moo tax ma ne nañ leen delluwaat suñu xel ci ginnaaw xam ne sëy du alal moo ko fondement suñu waajur ñun te alal mooy sëy que ñu delloo xam da ngeen a ñëw fii pour daan seen doole góor ñi tamit ñëw pour daan seen doole am alal yàlla moom moo koy tudd ci doomu aadama moo am foo nekk la lay fekk am alal fii ci ba ñibbi amawuñ ko fii ñibbi Sénégal am fa teraanga ne bu ñu toog dum alal rek ba ñu war du ñu sëy man dama leen di ñaax ci loolu comme ni ma ko waxee waxee ku ma bokkal ndey ak baay man noonu laa ko tuddee sama xol yàlla ak bi xam na ko doon sama rakk bi may bi ma bokkal benn ndey loolu laa koy xelal su ma xamoon loolu rek laa leen xelal nañ boo leen gisee ko leen bëgg ngir yàlla man du ma wax kenn bëggal Modou wala bëggal Samba wala bëggal Paat boo gisee ko la doy dama nga sëy ko te yàlla ak yonent bi tax seen wërsëg lii seen wërsëg di ngeen ko am man loolu rek laa wax yéen ñi ñëpp dama am na fu ma leen teg am na nu ma leen fonke am na nu ma leen bëggee waxuma ko woon tamit pour wax bu ñaaw moo tax wax dafa jafe su lu yàq moom mooy fii rafet njot ak ñaaw njot boo fi ñëw fu mu toll ñii dañoo ñaaw njot si góor ñi parce que boo ñaaw boo rafetul njort rek doo mën ko gis nit moo fi ama ñaaw njot def ci def cee fës bu bëri tamit ci gaa ñi fi ci góor ñi si jigéen ñi nag jigéen ñi kese de góor ñi kese mais yonent bi dafa wax ne ñaari jikko dara gënu mooy ñaar rafet njort si yàlla ak rafet njort si jaamu yàlla ñaari jikko dara yéesu ñaaw njort si yàlla ak ñaaw njort si jaamu yàlla dafa si ñun fu topp ba mu boo rafetul njort doo dugg si nit foog nga rafetul njort nga bàyyi yenn wax yu sew yi nga bañ nga di ko dégg. di dégg wax yu sew yi moom moo indi lu bari. ak tamit wax dëgg yàlla tamit fii dañ fi yàq der ñu bari ah fii ay ay yàqat der dañ fee bari. muy ci góor ñi mu si jigéen ñi. góor ñi la ëppee. te tànk benn du yàq der nag mun nga tànn nit quoi doo ko yëg mun nga wax fi nit loo xamante ni yow bàyyoo ci sa xel peut être da ngay foo sa wala lu mel ko noo xamante ni yow waxee woo ko noonu sax mu yàqal ko lu bari muy ci góor ñi mu si jigéen ñi. góor ñi la ëppee góor ñoo xamante ne yàqat der dañ fee bari de dëgg neexul dañ fee bari ay góor yoo xamante yàq der ak yàq jigéen dina fi nekk. man xooloo naa li may wax man mooy keroog ci ceetu keroog ci ceetu nu mu tuddati taayro bi am na lu ma leen fooxoon benn baat bu waxoon xaw ndax fàtte ngeen ko wala leen xam nga góor mun na wax ne tey ma am jabar mais jigéen waaye wax est-ce que xam nga loolu góor na wax ne tey ma am jabar mais jigéen mënul wax ne tey am jabar eh, kon wax naa leen ko léegi sama sama kàddu ci jigéen dina dina toog fa mu war a toog nit jóge fu sori ñëw fekk ko fa jël ko mu nekk soxnaam fu xam ne sax xalaatul woon ne kii dina jóge foofa wala kii mu ngi koy bàyyi xel xam nga mais jigéen dina sol dàllam tamit di dugg ay ruq defe ne moom mu ngi lijjantil boppam fekk ne day gën a soril boppam nit ñi keroog nee naa leen woon bépp jigéen boo xam ne yaa ngi ànd ak nit ngeen nekk takkagu la ngeen di fanaan ak yendal na la wóor ni kooku du la takk wala bu lay takk tamit bu la xasee ba takk dootul am ci yow confiance est-ce que fàtte ngeen wax boobu wax naa leen ko keroog ci ci waaw mais nag mais mais boo gisee ma wax loolu mooy que ne jigéen yow bi ci ngay takk pour bëgg mu indi la ay doom yu baax danga war a am ci moom jigéen bi ak ku mën a doon nanga nga ànd ak sa fulla ak sa fayda bul yombal sa bopp bul asaaro sa bopp boo boo boo boo jàppee ci loolu rek yàlla dina nit gis nga nit bu fekkee ne dafa ñëw jéem la sàkk mënu la am boo ko day xam ne jigéen ju baax nga dina gën a motivé wu pour que ne kii jabar bi nga xam ne moom la voilà jërëjëf fii yow jigéen ñi gën leen am seen fulla ak seen fayda ñun góor ñi tamit nañu yërëm jigéen ñi. am na ñoo xam ne bu ñuy dimbale jigéen duñ jigéen ngir yàlla ñu ñu néew lañu ñu ci bari dimbale jigéen. di ko chantage wala ngeen am lu ñuy séntu ci moom bés bu ñu demee ba li ñu bëggoon ci moom amuñu ko ci moom rek ñu daal di ko écarté yaa ngi dégg kon nag nañu fexe tamit ñun kenn ku nekk na nga xam ne bàyyi nga rakk wala nga bàyyi mag bu jigéen wala nga wala nga xam ne sax bàyyi nga yaay te lépp lay def rakku jambour wala do wala magu jambour na la wóor lo loolu ñu def ko sarak wala sa sama kon kenn ku nekk na nga japp Jigen ji nga nekkal japp ko comme sa mag wala sarak rakk te xam ne amuñu amuñu doole amuñu katan jigen amuñu doole amuñu katan nañ leen di yërëm di leen dimbale nañ leen di yërëm di leen dimbale parce que buñ ko defalee tamit day ñaaw parce que fi jigen bo xam dang ko ko dalal mu nekk ci yow nga kay defal lepp mu wóor ko ne yow bés boo ko génnee si kër gi ci mbedd mi lay fanaan bu xelam xawee kii tuuti rek mën na mën na mën na mën na tàbbi ci loo xam ne nii du du doon lu gën ci moom kon nañuy def te yàlla tax nee nañu dafa am ñett ñu mos a ànd imaam Xasaali moo ko nettali benn boroom xam bu mag la boo xam ne nii nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon na ko avant muy ñëw te moom ci ginnaaw yonent bi la ñëw nee dafa am ñett ñu ànd di voyager bi ñuy voyagé ñu dem ba sonn ñu ne nañ noppalu ñu gis benn benn pax benn xunt benn xeer bu xóot ni bu am pax ñu dugg ci biir di noppalu bi ñu duggee ci biir di noppalu yàlla ji daal di yebal ngelaw li ngelaw li ñëw puus benn xeer xeer bi ñëw këpp ci pax bi pax bi suulu ci ñoom bi loolu amee léegi bëgg nañu génn te àttanuñu xeer bi puus ko pour mun a génn ñu ne nag léegi nan la ñuy def léegi ñu ne nañu seet kenn ku nekk li nga mos a def ci lu baax te yàlla tax nga tudd ko ñi ñaan yàlla xeetali ko ci loolu pour yàlla mu ñu yërëm ñu génn ñu ne d'accord kenn ki ne man de sama yaay dafa nekkoon mag saa bu ma daan guddi gu nekk balaa muy nelaw dinaa yëkkati dinaa jël reeram ñëw indil ko mu reer ba suur ma fexé bam tok bam teud ba nelaw ma tëjal ko buntu bi lank dem benn bes ma ñew diko indil rer fekk sama yaay di nelaw te legi man ñewente na ko yee di yakal ay nelawam ma taxaw di xaar mu nelaw nelaw nelaw nelaw nelaw ba yewu ci bir guddigi ma jox ko reeram mu lek ba sur ma dal di ko buntu buntam door dem tëdd mu ne yalla ma ngi lay ñaan li nga xamne defal na ngi ko sama yaay ak xam ak njureel bi ci man ma ngi lay ñaan yow yalla yalla ngi ñu ba teggal ñu xeer bi ñu mëna dem doxi suñu soxla nenañ nañ bi mu waxee loolu ba pare xeer bi daal di samu tuuti daal di taxawaat léegi ñu ne keneen ki waxal léegi kenen ki ne man de dafa am benn way bu doon sam bu ñëwoon ma jàppoon ko muy sam sama jur ma war ko di fay chaque chaque mois wala chaque année comme ni ni jax sam xam nañu lool bi nga xamé ne mu ngi nekk fofu nekk ba benn jour mu daal di dem xaw ma fan la nekk léegi war naa ko fay xaalisam gisuma ko ma jël xaalis ba jëndee ko aw nag wala aw gàtt dugal ko si gétt gi xar yooyu di jurante wala nag yooyu di jurante ba mu nekk gétt bi ma toogee ay at yu yàgg waa ji door di ñëwaat ci dëkk ba ma xàmmee ko ne ko kaay mu ñëw ma ne ko gert gi yëpp yaa ko moom mu ne ko fan laa ko moom mu ne ko alal jama la waroon a fay te gisuma la dama jëloon alal ji jëndee ko ay ay ay gàtt gàtt yooyu ñoo jur ba gétt gi yëpp ci gàtt yooyu la jógee lépp yaa ko mu yaay borom waa ji ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan bu fekkee lii yow rek sa jëmm rek moo taxoon ma def ko maa ngi lay ñaan ci barke loolu yàlla nag ñu xeet li génn ñu ci pax mi ñu nekk nee nañu xeer bi tawaat ba si yàgg mu taxaw léegi mu des troisième bi troisième bi mu ne man de dama am sama benn doomu bajjan bu xamne dafa rafetone bu jigen rafet lol ma bëggon ko trop mom bëgguma defna lu nekk defna lu nekk pour am ko mënuma am yalla di dem ba jamono wëlbatiku ëlëk benn bes mu am soxla bu reuy boo xamne ne mënu ci dara mu ñëw dis mako mané ko soxla bi de bo bëgge ma fajal lako dagay fanan ak man sama néeg mag yow bu bët soko nangul su yeboo nga dem sa yoon ndaw si daal di bañ ne ko loolu jaraluma ko dem dem dem ba mu yàgg mu daal mu daldi xalaat xam ne moom fi mu toll nii wax dëgg yàlla toll na ci point boo xam ne nii mënul ñàkk def li ko waa ji sant mu daal ñëwaat ne ko d'accord naa léegi daal dem ne ko may ma ma ma naafi la daal di dem jàpp ba set julli ñaar raak tàllal loxoom yàlla ne ko yàlla li de manke da wante doonut lu ma neex daal di yalla ay ay mbirum yëpp ndekete waajaa ngi koy dégg xam nga léegi bimu waxe ba pare daal ñew teud waji waa ji ko sol mbubbam yëkkati li soxla won ci alal yëpp jox ko ko ba pare ne ko demal mu ah, kon duma fanaan mu def na jox la ko te yalla rek tax munen ak yalla ma ngi lay ñaan ndaw si nga xam ne dama ko bëggoon moom bëgguma woon dem ba jamono wëlbati ko ma santage ko mu gi mag am ci moom yërmande ba bàyyi ko ngir sa jëmm dong te mënoon a def lu ma neex ci moom maa ngi lay ñaan yow yàlla yàlla nag ñuy xeet li génne ñu si pax bi nee nañ xeer mi daal di naaw dal yi ca àll ba pax bi ubbeeku ñoom ñoom ñi daal di génn dem kon li ma bëgg a wax foofu mooy que ne jigéen euh, kooku yërmande bu mu amoon ci jigéen moo tax yàlla defal leen loolu te mënoon na ko mënoon na am li mu bëgg ci moom wante xam na ni kii jigéen la te toll na diggante mu am ci moom yërmande yërëm ko yàlla tamit yërëm leen ñoom ñëpp kon ku xam ne nii da ngay defal jigéen bul séentu ci moom que ne dama koy dama dama damay damay damay investir ni ko gaa yi di waxee am ñu xam loolu la wax damay investir damay def def bés sama sama lii du ko du ko perte liñ koy waxee wax ñu soo soo rokkee rokki rokki moom rokkaale wala